ci sa question bi. Mm-hmm. bu fekkoon député yëpp ci département lay dem ñu tabb leen faatu mu wóor na la yow mii man Jolof bu may falu ñoom ñoo may fal. Mm-hmm. ñu ngi ci campagne électorale bu ma demee war a jàkkaarloo ak ñoom. Mm-hmm. dana am danaa xam bu baax lan laa leen di wax mais du saaga diw wala wax ju ñaaw wala xaste parce que en réalité loolu ñun ñëpp mën nañ ko. mais ban njëriñ la ñu amal Fatou. amul benn njëriñ te te généralement. koo gis muy doxalee noonu ci wàllu politique am wala ci wàllu campagne électorale bu yàlla defee mu falu. bu mhm. demee assemblée del xool son comportement. Mhm, mhm. ça va être le même même comportement bi la fay yóbbu. donc mooy li nga wax loolu day décourager même peuple bi. te bu buñ deful ndànk ci taux d' abstention bi. mais loolu moo ko nar a indi effectivement. que nit ñi dañuy dem ba gis ni mais acteur politique yàgg nañ ko wax. ñoom ñu li ma wax. espoir bi troisième alternance bi suscité. Mhm. espoir boobu warun ko yak te ni bu continuer da danañ dem ba dem mais politiciens sérieusement ndekee wax jéfi nek rek mais ñëpp a ñom ñoom ñëpp a effectivement te lan la ñuy batalé mhm. jikkooy koy wuddu du effectivement Près de ma ngi won ci opposition bi. Mhm. bëggoon na nguur gi tax na wax na lu nek mais ban démé banama sur la base de ses propos fal nan la am léeg nga yaa ngoog doxalal war ñu lo man ak lo teulé mais ndeke la ma doon wax demb

li ñu leen di wax yow ñoo la ko gën a xam fi lay xaar kay mooy yaa ngi dagaan seen baat wax leen coow yi bu bu buñ la wóolu ba fal la yow boo demee ca pencum ndaw réew ma nan nga fay nekkee pour taxaw ci seen i soxla parce que yow yaay contrôler action gouvernement bi yow yaay nekk seen bayfaal nan ma jégal yow yaa war a nekk seen seen seen ab jaam mais malheureusement fii faatu koo fi koo fi fal jox ko baatu askan wi mu walbati ko def baat boobu karwaas yat la koy def mhm. di door askan wo mhm. malheureusement c'est le constat mhm. donc aujourd'hui on attend des candidats muy liste yëpp discours bo xamni ni d'abord un discours de paix parce que nena la fu soree sore lañu jóge nit ñi jàmm lan te faatu bala nga ne naam ne fa bala nga naam tant que jàmm ne nekkul suñu biir Ousmane Sonko na nek Messi na nek un extraterrestre mhm. président Bassirou Diomaye fay mhm. ab yaram wane na ko na Messi na nek xutb mais dama ne dana tal lenen luddul defal rewmi mhm. parce que jamm ji nekou fi te waxnako barki ko bërki démb aljuma kon d'abord un discours de paix contrairement ak li commencé ci campagne bi un discours bo xamni rassurant parce que tek ko ci soxlay askan wi lenen li won askan wi ne comme député gouvernement. comme député parti politique. Mhm. ne comme député président de la République comme député leader de parti d'opposition. Mhm. Mhm. parce que nous avons yeen yéen donc yeen la fay nekkal. que ça soit le camp présidentiel que ça soit le camp de l'opposition moi je pense que ni heure bu gouvernement bi Hmm. mais ils n'hésiteront pas à le voter. par contre fi effectivement euh, c'est pas rassurant. Hmm. mais aussi ils ont la latitude ñu jël position. mais il y a bëgg lu pour un député gouvernement pour hmm. ne doo ci ànd mais Boba, le peuple et là il il il il va trancher il va mm-hmm. juger. Mm-hmm. donc vraiment discours bi xam nga ko mm-hmm. na un discours de portée. un discours boo xam ne nii ku ko dëgg xam ne lii xel mën na nangu. jàmm jàng fi ah kii day man nañoo ameli li yaakaar ci mom ah ki day li mu wax xamna suñu soxla. parce que ñun ak mom ño bok fiñu yéwo ñun ak mom ño bok liñu dund. donc bu démé ci assemblée ba. effectivement dana fa meuna a suñu soxla mhm. dana ko meuna a défendre mais yemul ci défendre mhm. dana ko meuna a saytu mhm. parce que tay ci jollof gay bu fekkenti man dama fa wara nek député warna ma warna fa warna fa meuna xam lan moy soxla ya ministre bu ñew assemblée euleuk lu fay gouvernement bi di tek pour jollof dana xam li ndax yenuna mana wala yenul mana mais bes bu jalle aussi dana ko meuna topal sama bop parce que sama sama dal ay sol dem ba jollof xam ci surtout li intérêt Très ak c'est important donc vraiment askan wi nous mi ñu xaar yaana quoi mhm. doyna mhm. alors euh, li nga ne euh, VAR yi dañ ñëwaat wax nga VAR mo sonal mais euh, ki nga sonal ci réew mi Sonko la sante xam nañ ko gis nañu li nga la législative majorité assemblée daal di wax ne carrément jox opposition li nga xamante moy euh, majorité à l'Assemblée mënul bloquer ben yon action gouvernementale bi nga xamante mom lañuy amal euh, jëmale ko ci askan wi te sax euh, c'est plus responsable et ça permet juste à l'opposition d'avoir li nga xamante moy le contrôle total ci li nga xam moy action au gouvernement tay mi ngi wut majorité à l'Assemblée bokku na ci nga xamante mom moy incohérence bi ñu mëna noter ci ay waxam waaw xam nga xam nga xam mooy li ñuy wax rek c'est-à-dire damay nekk ci opposition bi maa ngi wut am na lu may gëm gëmloo nit ñi du mën a du ko def ah. mhm. mais une fois au pouvoir je tiens un autre discours. Mhm. parce que je me suis fait rattraper par la réalité du pouvoir en mmh. vérité. Mhm. mais gis nga euh, Fatou dafa am lu am solo loo xam ne nii dans pays africains. il faut

une fois au pouvoir, ils se considèrent comme des demi-dieux. Effectivement. Comme des demi-dieux. Mhm. mais loolu nan ko moytu. Mhm. amuluñu benn njariñ. Mhm. li ma wax léegi rek nguur gi donnoo ko ci waajur dan la ko denk, askan wi moo la dénk pour nga nek jamam. Jamu soxlam taxaw ci. mais wax nga ko léegi moom laa la dëggalal. l'équilibre des pouvoirs le pouvoir arrête le pouvoir Il y a un gouvernement l'exécutif est là, incarné par le président de la République avec son gouvernement, mm-hmm. dirigé par le Premier ministre. Mm-hmm. On applaudit. Et puis, qu'il y a une forte volonté pour développer au service ou au bénéfice du peuple. Mmh. Mais de l'autre côté, mais bon ami, un pouvoir législatif, bon amini, de contrer mm-hmm. le pouvoir exécutif, mais tant mieux. Tant mieux. Parce que, moi, je le mais pour nous, les gens ben cas pouvoir exécutif avec l'exécutif le pouvoir législatif ba léegi ñu ñu dolli ko ko ci mhm. ça pose problème mhm. ça va poser problème buñ ko nangoog buñ ko nanguwul mhm. tôt ou tard on va vivre les conséquences parce que régime yi fi jaar yëpp wane nañ ko te lan doon théoriser que ni assemblée caisse de résonance la dañuy ñëw rek enregistre caisse d'enregistrement député dañ ñi nelaw ba heure woote jot rek ñu fëgg leen na la joge wote rek nga wote xamoo sax ci li ngay wote daal mais dafa mel ni moom la ñu théorisé waat alors que sérieusement mhm. man bu fekkente ni bi rek amna une bonne vision ce qui est le cas mhm. amna un master plan sur 10 ans amna un plan le le le le le le plan sur 5 ans mu wóor ma ni xamna bu baax fi may tek sama tànk

législatif. Mhm. Mais les mêmes pratiques vont demeurer. Fatou. Ça, je dis la vérité. Hein? Oui, mhm. les mêmes pratiques vont demeurer. Mm -hmm. Parce que nous sommes Du moment où nous investir, nous investir, mhm. nous le proposer, mais généralement, peut-être que nous avons un député, Massam, mais nous sommes investir, qui investir, qui investir, faut qu'on ait un faut qu'on ait faut qu'on ait un tant que démo, man nga tenir n'importe quel discours. Mais une fois nous mettre le devant, devant des responsabilités, mais généralement, là, nous je suis dans un parti, discipline de parti, ou je suis dans une, dans une mouvance. Alors, euh, consigne le, le peuple relègue au second plan. Donc, mhm. sérieusement, je suis pour l'équilibre des pouvoirs. Mhm. séparation des pouvoirs, il faut avoir une réalité et non pas un discours. Exécutif, ne déroulé. Le législatif, mhm. effectivement, ne contrôlé. Le judiciaire, ñu jox ko cëram ba parce que nag Fatou buñ ñun ba ñun ba justice. effectivement kon donc je dis que ni opposition bi. Mhm. effectivement théoriser nga ni ba ci États-Unis mhm. bu ñu demee ci élection mi mandat généralement le camp présidentiel dañ koy gagné. Mhm. mais fii aussi. te ñooñu i démocratie moo waral suñuy démocratie mhm. kon kay fii la fii fii ko gën a soxlaate encore mais malheureusement en Afrique mhm. je sais daal des na quoi des na parce que ñun les acteurs politiques